un peu de quoi. Yeah. réaction koy Bamba Fall. donc euh, merci image bi ma gis léegi bi ma gisee ñi ci bari ñu ci bari dama leen a xàmmee sax ci gannaaw candidat jomaay bi nga xam ne mu ngi campagne seen liggéey la doon def tey bu fekkee ni dañoo gëm la woon ni fi ñu jëm moo gën fi ñu nekkoon. war nañu seet nuñ leen di dimbale gis nga boo yoree réew doo fa yontoo boo yoree réew dafa am yoo xam ni da ngay seet noo ci jàppee parce que tey am na ñaari entreprise yu ma dégg ci muy stade xaw ma ak la ñuy tëj nañu. sunu làmb mais ay doomu Sénégal lañu tey bu fukki nit ñàkkee seen emploi nga créé waat fukki emplois mais zéro la tey loo xoj xoj xoj xoj nit. ba mu dem ba mu nar a ñàkk ay emploi ay doomu Sénégal yi yóbbu seen kër mais teggil xoj boobu nga seet nan ngay bàyyiwaatee mu liggéey te nga may ko loo xam ne xëy na boo bëggee mu fay la mu fayee la ko man damay demander du ma défendre mu ko fayul impôt ndax impôt mooy état impôt mooy état dañ ko war a fay comme mu mënti doon ak foo mënti bokk impôt da ko war a fay wante bu kaa bi tollee fii ba muy jur ay perte d'emploi boo téye fenn ba muy yàgg te ma ngay yàqu da ngay dellu gannaaw li may ñaan président Diomaye mooy mu may leen un nouveau départ ay prédécesseur am effort dañuy defoon bu ñu ko ko dàq tey li ma koy ñaan rek su leen ko mënee baal ne leen désormais da ngeen di fay mu baal leen bu leen ko mënul baal mu yombalal leen ko parce que tëj entreprise teel tëj na tant de Sénégalais dem nañu chômage lu ñu war a éviter la te booboog léegi bi ñu toogee léegi entreprise yi tëj ñu ngi bëgg a bëri privé yi dem mu ngi bëgg a bëri mais bu yàggee waa réew mi ci boppam ñooy tonk ñëpp xam nañu dëkk bi doxatul dara dërëm circulé boo ci boolee nag ay perte d'emploi dafay metti presse bi ak loo ci mënti wax participer nañu pour changement de régime am ne serait-ce que pour loolu ba mu mettee tey maa ngi dégg Sonko la mu daan wax bu ñu musaan a jàpp Pape ci presse bi la mu leen daan défendre ak la mu ci waxoon waxu démbam la ñu bëgg mu méngoog jëfi tayam presse bi da koo jàppale woon na jàppale presse bi ne leen désormais da ngeen di fay wala lii baale naa lii mais ni ngeen di fay te nii ngeen koy fayee mais journée dans sans presse ci nga defagoo ñeenti weer muy am ci réew mi dafa ñaaw na waxtaan ak presse bi du ay ennemis te presse pouvoir na tey yaa ngi xeexal presse yaa ngi bëgg a dem législative ba la muy yàgg mais bu boycotté say activité foo jëm ku lay dégg ci àdduna RTS jëndul carburant jëndul oto fay luyaas mm-hmm. publicité bi na ko bàyyi privé yi parce que tey entreprise de presse yu bëri waxuñu ne ni ñuy dundee de man am naa ci xarit dañuy créer entreprise de presse am beneen activité di fóotu xaalis di ko dolli fii pour mu dox waj mu tëj entreprise yi la mën a génneel bénéfice yu bëri ci presse bariwul journal cent francs publicité yu ñàkk fayda nga dégg léegi sax yenn télé yi ay sëriñ buy jaay garabu garabu lañ lay jox publicité amatuñu publicité bu baax sëriñ buy jaay garabu garabu lañ lay tegal à longueur de journée. publicité yi fay xaalis. jaay ko temps d'antenne. publicité yi jaay xa yi fay xaalis dëggantaan ak publicité détail ñu bu ko RTS état du fayantoo entreprise yi nga xam ne état beneen moom pourquoi ñu amoon ak contrat yenn entreprise de presse yi xëy suba rek ni contrat bi dagg nañ ko pour lan. mais attendez xaalis biy jógee ci état bi jëm ci entreprise de ci ay doomu réew mi la jëm mais tey boo daggee contrat bi dagg la leen teg ko impôt mais kooku nan lay fayee salaire mais xanaa ñoom dañoo fàtte ni père de famille bi joxul doomam mu lekk état am na ci responsabilité ay doomi réew mi lañu boo demee France wala nga dem beneen réew ki daan liggéey ba liggéeyatul am na indemnité bu ñu koy jox tey amuñu indemnité bu ñu jox ñooñu kon bu ñu leen xañ la ñuy am ci salaire yi maa ngi ñaan Ousmane Sonko encore une fois de plus comme que moo réew mi Diomaye moo na mi moom Cheikhou Chérif la moom garaawul moom moom du wax dara mais Ousmane xanaa gars yi waxuñu la ni ñu ngi dàq rek Ousmane poor baa ngay jeex ay doomi réew mi lañu Ousmane lonage ma ngay jeex tàkk Ousmane sa gars yi koo ci fal li muy njëkk def mooy dàq ña fa nekkoon pour indi ñeneen Ousmane am na ñu la faloon ñooñu militants yi la mais tey réew mi du militants réew mi Sénégal tey ki la fal ak ku la jàppale leen ñëpp dimbali leen ñëpp ñëpp ay doomi réew la mais bu dee boo dàqee sénégalais indi beneen sénégalais amul sens yokkoo da ngaa yemale wala nga wàññi dàq bi gisuma waa gisuma yeneen société sab koo fu ne fu ne ñu ngi fay dàqe fu ne ñu ngi résilier ay contrat rafetul rafetul doomi réew mi ñu ngi tonk am na ñu commencé rëccu lañ la fale woon parce que sa directeur yi waxal ak ñoom mais ñu nominé directeur même pas trois mois nga bëgg a dàq ñëpp. indi say nit yi bopp Ousmane xanaa santoo leen loolu ak la nga ñu digoon ci campagne bi kon yaakaar naa ni gëstu waatal yërëm sénégalais yi bala muy yàgg di leen soxla ci législative yi de à bon entendeur. ma